nañu Sénégal dimbale ñu ñibbi Sénégal ñetti weer ñi ngi ko def fii am na ñoo xam ni seen i yaay gaañu na fii am ñoo xam ni seen papa gaañu na fii am na ñoo xam ni seen i doom sax mënuñoo dem metti na ñetti weer ñu toog fii amuñu dara loo xam ne lu ñuy def am na ñoo xam ni seen i projet yàqu na am na ñoo xam ni ñàkk nañ seen liggéey parce que dañoo ñëwoon rek pour visite quelque jours pour dem ba léegi ñu bloqué fii lu tax ñuy jël yeneen réew yi yëpp ñu jël leen ñun ñu nekk fii ñun ñi ngi fii ñun Sénégal lañ gën a jege ci Casablanca dakaar capitalu Sénégal ñun fii ñu nekk nii moom lañ gën a jege ci Casablanca mi capitalu Maroc kon nañ ñu dimbale nañ wax ak Mauritanie yooyu nañ nañ wax ak Mauritaniens marocains yi amuñu benn problème benn problème marocains yi amuñu ko mais nañ wax ak autorité Mauritaniens yi ñu dimbale ñu ñu jàllale ñu ñu njibbi defe nañ ñoon duñ fi koore koor nañ fi ba nara a koore ba tabaski baa ngi jege si nañ ñu dimbale ñu ngi woo gouvernement Sénégal nañ ñu dimbale lillahi wa rasul waaw képp koo xam ni dégg na suñ message bi i sàll président de la république ku ne xam na ni yaa ngi ku ku am yërmande ga ku baax nga ku mën a dimbale nga ku ku yërëm sa sa sa peuple nga mais gestuñu ni nga gestoo ñeneen ñi ñi ngi am ci yow yaakaar ñi ngi lay tàllal loxo yàgg Marème fay sàll ñi ngi leen di yaakaar di leen tàllal loxo vidéo bu nekk def nañ ko mais dimbale leen ñu bii muy suñ dernière vidéo ndax ñu mën a jàll fii dem xoolal doom ni mu neexe kenn ku si sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna feet bii ñëw di ko koor gi ñépp ñun ñu